avec vraiment mais en tout cas Viviane numéro en deux jours vues bravo Viviane bravo bravo les dama bëgg wax vraiment j'ai été ébahi DJ Boops, DJ Boops, à un moment donné tellement il impressionné par cette cette อย่าไม่จานนวมาเก็บอย่าไม่เก็นแนวอย่าไรอย่าไม่จานนวมันเอามาทุ้วยประกันมันเอามาทด้วยน้ำมันมันเอามาทด้วยว่าแต่สตาร์เลยยาไม่จ่ายแนวกายไล่เลยปัตตาเจลอับบอนเลยมิสเตอร์เชงเงินอัมพูจัจจฟิตี้จัจจ์ฟิตี้สมัยมันเลยมิสเตอร์เชงเดบิบรุกลินนิวยอร์ก Viviane dafa xam le secret pour l'éternel jeunesse Machallah. Viviane DJ on dirait une une modèle parce que instant DJ nous ne ko mais Viviane même ba mu nous ah DJ Padros DJ DJ euh, à un moment donné tellement impressionné par cette cette cette par cette beauté Machallah, machallah, Viviane Sénégal. moo tax Afrique ñëpp ko xam Djidji Boups li mu wax dëgg la nee na ko foo foo tourné Almadies sa affiche la gis fu ñuy dem sa affiche la ñu gis mais aussi da ngeen war comprendre Viviane elle est internationale moo tax doo leen ko dégg sax ci yenn ci yenn affaires yi nga xam ne peut-être day day day <laughs> day day indi ay controverse xam nga euh, euh, xam ngeen fa ma bëgg jëm mais foofu sax bëgguma fa jëm même ñun ñoo Mister Shake Viviane loolu du ko wàññi dara Viviane li mu liggéey li mu liggéey ay ay ay yenn affaires yi du ko wàññi dara comprendre parce que ñun nag ay youtubeur lañu des fois dañuy génn des fois dañuy saboter dañuy génn di wax mais Viviane ñun on connaît la valeur de Viviane. nous on nomme Viviane la reine du bal ndax loolu bu ko tiiti déggee du ko neex de bu nous ne Viviane mon mon wax reine du mbalax du ko neex mais Aïda Samb génne na clip bu rafet bu rafet bu tudd baadoo la hein génne na clip xëy na dinaa ci wax après mais même aïe Samb xam na kan Viviane mais nous ñëwaat ci clip bi robe yi mu sol.

mais Viviane même quand elle est relax moi fin bi ba def interview gis nañ ko euh, euh, euh, cheveux bu blond defe naa bu mu sol mais loolu yëpp ñun dañuy dañuy bien qu'on soit des hommes mais yooyu yëpp ay détails yooyu loo xam ne moom jaay clip mais way bi ci boppam dafa neex beat bi dafa international fi mu ko jàpp foofu la baxaw defe naa moo koy musique daf melni baxaw mokay defal musique Viviane a trouvé la formule ko xamne elle a fait des duos avec ku melni ni Busta Rhymes hein? voilà Mavado je fais lu tudd des des des artistes internationaux des stars internationaux comme Viviane macha elle n'est plus à présenter. et puis elle est constante mon fu mu toog mi ngi bégal ay fansam di dépenser khalis, di defar ay vidéo loolu la tax na wal set, bu ñu toogee ko moo tax ñu wax bu ñu di gis ay Sidi Diop di génne ay teaser maa koy yëngal dëkk bi yëngatu ñu gis Mandiaye Seck. Hein, génnoon na fi vidéo tan yi c'est vrai que tan yi Mandiaye Seck ak Sidi Diop la ñuy dégg ci ay problème mais Sidi Sidi Diop génn na fi benn benn son boo xam ne benn yoon lañ ko dégg mu neex loolu c'est rare nga dégg son tey mu neex la tey maa koy yënga kooku ñu ngi xaar vidéo ñun loolu foofu la ñuy séntu Wally Seck dañu bëgg moom it mu mu ñëw yëf yi gën a neex parce que ci période Covid la ñu nekk ci périod Covid la ñu nekk ci période décembre la nekk gis nañ fi Youssou Ndour ndeysaan tàngal Sénégal

macha allah macha allah yàlla bu la ca dugg ñun ñu ngi lay wax bravo Nous ne ko on dirait une une modèle parce qu'à un instant DJ Boubs ne ko jugal nga dox mais fii DJ à un moment donné vous xolli tellement impressionné par cette cette cette neige par cette beauté macha allah macha allah Viviane Mingi sigle sigil Sénégal moo wa waaw gars de toute façon Lola laa amoon ci li wax ci Viviane li ñu leen wax rek may like les

doon naan ci kaw ba suuf yow da ngaa bees ni cadeau de Noël maa ngi naaw doo doo doo saaga doo ko def banaan xaala doo ko ci suuf man yaa may daan naaw man ci kaw laa la fekk man ci kaw laa la fekk man ci naaw billahi Macky Sall tey rek mu xam ne am na problème man Sonko laa ba 2024 gisuma lu may jëlee ci Sonko